TQG Touba Quincaillerie Générale ñëpp xam ko ci qualité moo dellu si indi leen ay produits de finition ak décoration di lu am solo lool ci wàllu bâtiment BA13 di plaque de plâtre isolante baax ci bépp aménagement intérieur mën nga caa liggéey ci anam bu la neex xew na lool it ci jamono bu la neexee tam lambris bois di décoration bois rafet lool ci résidence hôtel wala sa kër borom daraja yi taamu nañ ko lool. lii di contreplaqué yu TQG moom tax na meuble importé wàññeeku bu baax ndax liggéey bu rafet bi ci doomi réew mi amal ak contreplaqué yu TQG mën nga caa defarit cuisine yu rafet te dëgër ay comptoir ay meuble de rangement ak décoration caro parquet it ci mëninu TQG la bokk ay design yu wuute waaye yépp taaru lool TQG Touba Quincaillerie Générale gunge leen taxawu leen ci seeni projet bâtiment ba lépp sotti ci anam yu mu gën a rafete ca xéewale moo ko tax a jóg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 la ñu jot a def yàlla na ko sunu borom nangu dañu koy tënk nag ci ñaari tomb bu jëkk bi moom laa doon junju euh, muy fexe ba guddi yi nga xam ne moo des ak a néew ak bis yi ci biir weeru koor wi ñu fexe ba mu bañ ba mu bañ noo rëcc ndax li ëpp ci weer wi dem na waaye des na ay ruq-ruqaan nag waaye li ëpp ci bis yi dem na waaye teewul mu des loolu nit mën na caa mucc ëllëg waaye guddi yu bari it jàll na waaye des na ci ay ruq yoo xam ne yi ku fa dugal loxoom ba génne kudul moom dana ko ñee yàlla ci yàlla boole jaamu yàlla nag dafa am bànneex bu ca nekk doonul nag ñii jaamu yàlla ñépp ñoo koy yëgandoo dañ cay rawante donte ñëpp dañuy jaamu yàlla ci ni ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallama teewul rawante nañ ci kenn ku ci nekk bànneex ba mu cay yëg jamono ba mu koy def bànneex ba nag ka cay ëpple mooy ka koy def te yàlla rekk tax mu daananteeg bakkanam ba bakkanam mujj bëgg ko la mag waxoon ne nang ne xam nu ñuy jaamu yàlla nangoo jaamu yàlla ko gën ci xool nag lay nekk xool mooy nangu mooy bañ ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ak nit jëmmi nit aw lumba nga ca wow nu mel jëmm ja mel ko su jagee jëmm jëpp jag lu def mu jag waaye su dëngee dara dutu jag te mooy xool bokk yi ak jaamu yàlla ak gëm yàlla nekkul ci di ŋaat ŋaati di dem ak a dikk waaye na yàlla rek tax na ko seereel yàlla ndax moo mën a fay euh, buñ ci jëlee nag tomb boo xam ne bii ñu bari bàyyiwuñ ko xel muy ñu di ci ndokkeel jumaa ju jee nekk ndakaaru nga xam ne ñoom bu nit ñi ne basin yàlla ñu dellu woote waat ba ba xaddi di jot di julli ak sëlmal yàlla na leen yàlla fay gis ngeen julli li ko tàmbalee ñetti waxtu wala ñaari waxtu ak nangam jëm ñeent ba juróomi waxtu dañ naan gone yi dañoo xewal def xiyaamu layl waaye du yëfi gone yëfi mag dëggantaan la la cay firnde mooy waxtu woowu ñi nekkut ci grand place yi di rey guddi gi bëgg nelaw bëccëg bi am na suñu ña ngay nelaw waaye nag bàyyi nelaw ya bàyyi yitte ya bàyyi grand place ya loolu bokk yi ku mos neexitu jaamu yàlla rek moo ko man ku mos neexitu jaamu yàlla rek moo ko man ndax loo ko gën a def di ko gën di di ko gën di bëgg am na ci ay naan yooyu ku koy naan mën naa yeex a bàyyi ndax day saf ci aw làmmiñam bu demee ci biir ba moom duutu ci cig dara waaye day neex ci aw làmmiñ mu di ko wanaasu ci ak boli loolu lañ yaakaar ne mooy liy dundal jëmmi nit ki waaye ruux li koy dundal mooy jaamu yàlla rawati nag ci guddi yi ñu toll bokk yi waxuñu néeg ba ñetti waxtu jot nit ki jàpp ci ndox mu sedd mi dox jëm ca jàkk ja ak lu ko ci mën a dab ci yoon bi fas yéene fa nekk ba fajar jot mu julli suba door a dem ci liggéeyam waxuñu loolu la ca nekk waaye julli yi nga xam ne dañu koy woote ci waxtu wu nekk kenn du ne dégguma ko am nañu metti ci ñoom lool jamono ba naa féq di am suñ su dee am ba léegi dañ koy tuddee ay naafeq ndax day metti di dégg nga dugg ci boppam day metti suñ demee ba mënuñ ko ñàkk defit it dañ cay wane tayal boo xam ne gii da lay wóor ne kii moom li muy def dara ñooru ko ci loolu alxuraan waxoon na ko waxoon nañu ko ci jikkoy naafiq inna almunafiqina yuxaadicuuna allaha wa huwa xaadicuhum wa ida qaamu ila lsalaati qaamu kusaala bu julli bu nodd yi nomsee nomsee nemse nemse ba nga xam ne fépp ay nodd la dangay dégg mu ne fii neexut a waxtaane ndax saa boo nee nangam ak nangam ñu nodd ah kay loolu moom la ñu fi indee su demee ba mënu ko ñàkk def def yi ni ku tayal la tayal xamu ku sala su dee moom dong nag mën na ko bañ a def waaye su fa nekkee ku nit dana jóg def ko ni ko nit ñi defee yuraawuna naas wala yadkuruna allaha lu néew la seenum xel di dem ci yàlla lu néew xanaa ñu gis ku faam wala gis ku wéri di metti goo xam ne bëgguñu mu dal ñu ne cey yàlla daal cay noppi waaye dara jëralu leen bàyyi ay nelaw di dem di def qiyaamul layl du yëfi gone yëfi mag la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moo jëkk ñam bànneexub jaamu yàlla gën koo xam ñépp moo wax ne moom ci julli la ak ruuxam di bége ju'ilat qurratu ayni fi salaat balaa am jàmm daal daa taxawal julli ki nga xam ne nag mu ngi taqamtiku neexu jaamu yàlla manis na koo xam ci buy julli ku la gën a yàgg ak julli rek manis na koo jiiñ bu fekkee yàlla tax ma di ko def Aïcha nee na radiallahu anha yonent bi sallallahu alayhi daana taxaw di julli ba tànkam yi sadd ndax taxawaay yu yàgg mu ne ko xanaa li yàlla wax dalaa doyul yàlla nee na toppatu la dara du la weesu du la ci kanam mu ne ko ah looloo tax ma di ko ci sant ndax defaluma lu ko jar defaluma ko lu ko jar tànn gi ma tànn ci mbind ci jaamam yi dafa lu ma ko lu ko jaral lu jarloon kon bokk bokk yi foofu ñëpp war nañ faa xool xam ne ki yàlla garantil ne ko toppatuma la dara donte musu koo topp doon defut yi ñu koy toppe waaye joxoñu suñu borom la ci ne góor góorlu ci ab jullit waru garam la li ci kanam duma la ci topp dara téewut mu daan taxaw di julli guddi ba tànk ya sadd bu doon suñuy tànk dañu naan tànk yu neew yi du tax mu bàyyi de ndax maam Cerno am na ku laaj lu la tee jàpp mu ne ko daa am ab neew buy soog a toj muy ragal mu sol ndox ak it ndox mu sedd mi it wóoluwu ko ci tànkam yi maam Thierno tàngal kaasub ataaya ca bëccëg jox ko mu naan mu ne ko la nga doon wax ci suba dara du ci dëgg waxoo dëgg ndox mu tàng moo guux ci sa gémmiñ mu jëm ca biir ba fépp di ay nooy nooy moo gën a metti fuuf te danga ko muñ ci ndox moo sedd mooy sattu ci sa kaw yaram bi laggal jàppi te julli ci kon boog gannaaw ña jiitu ñoo ko gisee woon noona dëkk di jooy saa bu weeru koor bi masaan si fii ñu baax ñëpp dañuy sumboo seeni rongoñ rawati nag ñu dem ba wóor na leen ni wéradi gi mën nañ cee bañ a jóg la leen di metti dëgg mooy bu weeru koor ñëwatee fukki guddeem yi mujj ya du leen fi fekk ak lañ ko daan sëf mu dinañ ko yóbbaatee waaye daanañ tuuri rongoñ nit ñu defee ne njaboot gi ñu fiy bàyyi la walla alal ji walla wala wala ñu ne déedéet néeg ba ñépp tëdd na tekk ñii di nelaw ñii nekk ci seeni liggéey di wut alal ñoom ñu ne fojjat jóg dem jàpp ci ndox mu sedd mi ñoo ko yàlla daal di julli di sëlmal te rakka bu ci nekk taxawaay ba dañ koy teeylu bu baax rukuux ya day mat sëkk ba ku wérut génn wér gi walla jaamu yàlla neex ci sab xol doo ko mën a dékku su rukuuxee lu yàgg jóg taxawaat fa lu yàgg sujjóodaat lu yàgg toogaat fa lu yàgg ñoom la alxuraan di wax di melal naan siimaahum fi wujuhihim min athari sujud sujud bu yàgg boo xam ne day mujj boo xoolee xar kanamam bii sudut ay tupp tupp yu ñuul yi xew léegi yiñ ci def it boo gisee kanam gi day leer nañ mu wóor la ne kii bokkut ak gaa yi ngay tasal loolu nag tëdd di nelaw du ko maye waaye la daan metti jaamukatu yàlla yu jëkk ya mooy loolu ba ci ñu mujj ñu wóor na leen ne koor mën na leen fa bañ a fekkaat ndax wéri digi metti na fukki guddi yu mujj yi koor ya waxaale wuñ la atikaaf loolu nit ñi kafeetuñ ko sax léegi kafeetuñ ko te kon atikaaf min nawaafilul xayr waaye dañuy xalaat jóg jël nit ñi naroon ñu bàyyi ñu ko ne bàyyi ñu ko dem xalaat dem julli ci kon boobu alxuraan wane seen mbir ne lu waay man a góorgóorlu mën a góorgóorlu am na ñu ko mënoon fuuf am na ñoo xam seen lal ya daawut miinante wutul ak seen wet seen i lal miinante wutul ak seen i wet ja wetum dañoo wala wetum càmmooñ wala jaaxaar gannaaw ga la ko waral mooy danañ ko doon ba mu jekk waaye dañ koy añaane dañ koy siide jëm na tuuti ku bëgg a tëdd da nga tëdd lu yàgg des na tuuti ku bëgg a tëdd da nga tëdd lu yàgg yàgg loo xam ne kenn du la yee tatajaafa junubuhum an al-madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an daan ne wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun daan ne jub guddi nag tidur bi rawatina ci weer ko la ca nit di amee mënut a xam ñaata waaye su ca tegee bët moom xolam dana set fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bimaa kaanu ya'maluun daal nag seet leen ñaar ñi nga bëgg a wax ba xam lu leen wutal ci xam ne daa mos cafkat bànneex jaamu yàlla ba ba bëri bi ca li ca jàpp lu wax nañ benn kilifa si Mawla Mbacke tukki bi sori na fi nga jóge daa sori na ko may mu ne waaw mat na ko rek ñépp jóg moo daal di xool ne ah man kat kon sama jóg jot na gannaaw nit ñi jóg nañu war na ma jóg may itam teraanga ji nga xam ne kat moom lañ ma gàttandoo fii ci dëkk bii ku fekkee ma ma nekk teraanga ji ñu ma gàttandoo ci dëkk bii yandoo ko fi ak man di des ci ngoon bi lu ci nekk maay seet la ma ca soxla ma joxañ ko ñu dog ko ma it am na lu ma war sama diggante ki ma jox teraanga ji muy subhanahu wa taala na ko yàlla binde woon kooka nee na noonu la tàmbalee di def ay rakaa ba moom fi mu woon mu nelaw fa ba ni mu dem waa ji gisut fu sëriñ bi tëdd ci lal lu may saa su ne mi ngi ko gis mu toog wala bu bu nee nii gis ko mu taxaw loolu nag bokk yi sas wu rëy rëy rëy la woo xam ne diw moomu ma jur taxutoon mu doyloo loo ko doy na lu nekk waaye taxutoon nag mu doyloo ko ci digganteem ak li ko war digganteem boromam diw mi ko jur coobare suñu borom doonu ca dara ndax la diw doon def kenn du ko laaj ëllëg alxuraan wax nañu ko tilka ummatun xat xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluuna amma kaanu yaamaluun kon ñun ñi fi desee li koor gi des fan yu néew fan mooy bëccëg ak guddi ñun nañu war a def gannaaw demaguñ fekk ñooña te koor gi fekk nañu fi te ñoo gaaw li ci des bala moo jeex mu yóbbaaleen ñu loo xam ne bu ñuy rëcc it la ñuy rëcc mooy fa suñ kàttan yam waaye la ñuy néewoon def nañ muy tom bu njëkk bi kon xiyaamul layli bi ñuy def ci jumaa yi ak jàkk yi ci koñ yi ñii naan dañuy tànqal seeni xol deena ba ba ñu jëm ko yee euh, koo xam ne ñu ne ci jàkka ji taal lamp yi waxuñ ca kaw sax taal nañu rajo yooyu lu may ñu ngi biir di jàng dalaa dalaa xatal ba ba nga xoolal sa xol xam ne xol bu tàmbalee dee nga yore koo xam ne it dañ ne nodd yi daf ñuy sonal na xam ne xolam a ngi bëgg a dee ndax nodd lu ñu cay wax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah yàlla kenn la moo yónni yonent bi ñëw leen jariñu hayya ala salaat hayya ala ñoo tànqal te bokk yi kàddu yàlla dafay koy fay qaalat il yahud yadullahi maglulatun gullat aydihim wa lu'inu da daa tànqal nit ñi wala gone yi dañoo tànqal nit ñi ci seen julli guddi na xolaatam xolam làmbar ba xam ma ngay am réseau waaw wala dem fa asaabahum allahu bima qaalu jannatin tajri min taxtiha al-anhaaru xaalidina fiha wa dalika jazaau lmuxsinin daa am ñu ne lu tee ba duñ gëm yàlla nii nga xam ne lim yor soxla nañ ko te mooy aljanna bëgg nañ bu ëllëgee ñu dugg ci ànd ak gaaya yàlla ne loolu ñu wax naa leen ci dugal aljanna waaye ñee lee ñu wax naa leen ci yóbbu naa moo xam ne ku ko gis dootu xalaat wax kon loolu mooy xiyaamu lay bi yëfi gone yëfi mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko def ba ay tànkam sant ñii mujj junj naa ci koo xam ne ñu bari ñun gis na ko lam lam ko doon tële lépp daana taxaw na mën a taxaw di sëgg ka sëlmal taxaw ka sëlmal ba ba waxtu julli suba jot mu jóg julli ci yàlla na yàlla fay ñëpp di ci topp mbokk mi jëkk a wax junj na ko muy zakatul fitr ñu xam ne ci koor gi la bokk yonent bi moo ko digle tu'matan lil masakin wa tuhratan lis sa'im min al lahwi war rafas tuhratan lis sa'im min al lahwi war rafas wa tu'matan lil masakin mooy dañoo jublu bu ëllëgee bu ñu nee tey jii la julli doole ak ki ko am ci am col ak ci waajtaay ba li ñuy def ci bisu bis yi ko jiitu muy war naa nañ ko dimbale ci nañ ko dimbale ci la mën a ñàkk moo tax lu mat a sonne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li nit defoon ci biir koor gi te ko mën na ko koo faral bu doon boobu jar na la waaye ñaareel bi it woddu lislaam kenn ku ci nekk malaan mam woddoo mu wodd ci lislaam ba ku ko xool gis gis lu dul lu rafet doon na ko jar te mooy dimbale ñi nga xam ne ñoom la ci seen soxla gën a jëm ba bu ba bis baa am na ñu ko am waaye ba bis baa ñu bari mën ko bañ a def ni ñu koy génnee ku dem ca fa mu dëkk ca boroom xam-xam ba fa dëkk te gë- te maanu te xóotal àlluwam dana ko ca wax lu leer lu mën a jàpp waaye ñu nekk bitim réew ñu xam ne kenn ku ne fa mu waree fa da koy su fekkee am na ñu ko fa jox baax na su amuñu ko jox mu doon ko yónnee ñu nekk Sénégal dee su ko jox koo xam ne it da nga ko waroon a xotti mu wàcc la wala nga dimbale ko ci julli gi mu wàcc la déedéet ñi ñuy jox asaka lañ koy jox innama sadaqatu lil fuqaraa wal masaakin wal aamilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal ghaarimiina wa fi sabilillahi wa ibni sabiil faridatan min allah wallahu alimun hakim dee su ko wëndeel si bopp it door koo joxe ngir bëgg lu ko nar a dal moo ko njabootam topp kam koy jox déedéet loolu du ko jëriñ dara la yàlla yàlla taxatu waaye li su ko tegit di ko jéggi woo jabar guñ jéggi nga dana ko joxe luñ gàll ci sa kaw la niñ la gàlle weeru ko soo ko defee yàlla fay la soo ko defutit ñu teg ko di la xaar di la laaj ëllëg lu tey woo nga def ko man amul kenn nag ku mu wàcc ku koor war rek war na ko moo xam muy góor wala jigéen am na nag ñoo xam ne ñoo ko war a génneel aw nit waaye ku ko manit bu ko mënee génneel boppam baax na ci man-manu boppam donte wa am na ñu ko mën a génneel su ko defee nag su ci jógee waajal bisub julli yàlla ñu ci yàlla yóbbu te liñ ci jot a defal ko yàlla nangu ko allahumma taqabbal siyamana wa salawaatina wa duaana wa saaliha amalina innaka anta samiu alalim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim allahuma innaka afuwun tuhibu alafwa faafu anna allahuma jaal xayra amalina awaaxiraha wa xayra amalina xawaatimaha wa xayra ayaamina yowma nalqaaka amin yàlla yàlla na nga ñu nangul suñuy koor yàlla na nga ñu nangul rakkaa yañ ca def yàlla na nga nangu ñaan yañ ca ñaan lañ ca def ci taddu julli du woor tudde ko lu baax yàlla na nga nangu lépp yàlla na nga nu jéggal ndax yow yaa moom njëgal te ku la jéggalu rek nga bëgg yàlla na nga ñu jéggal yàlla na nga ñu defal suñ jëf yépp bañ a yàqu bañ ngaa yàqu mooy mu dem ba ma sëkk te bu matee sëkkit yàlla buñ ko gis yàlla na nga ko gis yow daal yàlla nga ñu defal bis yi gën ci suñuy bisit muy bis ba ñuy dajeeg yow mu doon bisu mbégte ci ñoom yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri muslimina amin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 TQG Touba Quincaillerie Générale ñëpp xam ko ci qualité moo dellu si indil leen ay produits de finition ak décoration di lu am solo lool ci wàllu bâtiment BA13 di plaque de plâtre isolante baax ci bépp aménagement intérieur mën nga caa liggéey ci anam bu la neex xew na lool it ci jamono bu la neexee tam lambris bois di décoration bois rafet lool ci résidence hôtel wala sa kër borom daraja yi taamu nañ ko lool. lii di contreplaqué yu TQG moom tax na meuble importé wàññeeku bu baax ndax liggéey bu rafet bi ci doomi réew mi amal ak contreplaqué yu TQG mën nga caa defarit cuisine yu rafet te dëgër ay comptoir ay meuble de rangement ak décoration caro parquet it ci mëninu TQG la bokk ay design yu wuute waaye yépp taaru lool TQG Touba Quincaillerie Générale gunge leen taxawu leen ci seeni projet batiment ba lépp sotti ci anam yu mu gën a rafete ca xéewale moo ko tax a jóg TQG, notre force, la qualité, n'est pas un slogan, mais une réalité. Touba Quincaillerie Générale mu ngi leen di ñaanal kooru jàmm.